axlan wasaxlan nana lan la yéen a kaay xëye fekk leen ma si biir l'observateur moom mi kay wax ci coowal bato ba nekkoon ci port bu ndakaaru ba xolam sedd ubbil yéen a bi bato boobu nga xam ne engrais la defoon de ba fees dell kay ñi say tudd ki nga xam ne moom moo di aji njaay ma ne la jamono ji kay gars yi yëngalaat nañ dossier ba am na si ñaari nit ñoo xam ne si jamono ji joxoon nañu leen ci baaraamu tuuma de te tey jii kat dinañ jàkkaarloog attekat yi ne la Aziz Njaay mi nga xam ne dañ koo xam fii ci biir réew bu Sénégal bokk na ci ñi nga xam ne joxoñ lañ leen baaraamu tuuma tey jii dina jàkkaarloog enquête kat yi ma ne la yëfi narul sedd de ndax am na ci ñaar ñoo xam ne ci am nañu mandat dere Aziz Ndiaye ci boppam tey jii dinañ ko dig diglu ko mu daal di indi ay leeral ci mbir moomee ñu koy tudd ak i moroomam coowal njubla ngoogee kay narul sedd de képp koo xam ne si tudd nañ la si rek bay boo nga xam na sa tànk moom mi ngi si xal sa geneen wet ga l'observateur dalal Ousmane Sonko meeru Ziguinchor moom la séqal waxtaan wu yaatu ñeel feetu 8 mars gi nga xam ne moom la ñu génn démb nettali digganteem ak mois de mars histoire yi nga xam ne dox na si yëpp yéene kaay bi biral daan na nag daaw 8 mars ba Ousmane Sonko xamul nu mu ko feetee ndax coow li nga xam ne moom la séqoon nag Adji Sarr ren tamit ba muy nettali histoire bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak Adji Sarr amul benn point bu Ousmane Sonko bàyyi dikk na si ba mu jeex tàkk amul lenn lu mu ca bàyyi waaye nag Ousmane Sonko démb boo ko déggee muy wax da ngay xam ne kii naqaru xol bi nga xam ne moom la amoon léegi daa gën a yokk maanaam coow li nga xam ne moom la séqoon nag Adji Sarr metti na lool amul nag point bu mu laalul démb démb wax na si ba doyal Ousmane Sonko biral daan na ndaw boo xam ne fettegul ci nan moom la ñu sol ba mu fees dal mu bëgg maa daaneel ci wàllu politique waaye nag jàmm ak pexem yàlla ak dogalam sénégalais yi tamit taxawu nañ ma de ndax nag bu dul noonu ak ñoom jamono jii kan man maa ngi wax ni 8 mars bi ma ngi koy feetoo ci biir kasa vox populi yéen ak ay tëll daan na coowal parrainage bi ñeel élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolu tamit yi nga xam ne moom la ñu waxoon mooy caution bi ñu bëri doon ko si loolu moo leen nar a kale ministre bi ñu dénk wàllu intérieur nee na nag moo xam mu nekk parti politique wala koo mën a doon fa séenee sëgg ci géew bi ngir élection locale yi parrainage bi moom da nga koy matal sëkk wala doo bokk nee na kay lu mu gàtt-gàtt di nga am 34 580 parrain wala doo jàll lan maa la ko wax de yaa Cheikhou Baba Lamine Diassé jamono ji nag gars yi toogatuñ de maanaam képp goo xam na si bëgg ngaa dem si élection législative yi rek yaa ngi wàcc si terrain bi di liggéey ak di li nga xam ne moom moo di ay parrainage bi nag dinañ ko amal ci ci juróom-ñaari raison raison bu ci nekk nag di nga ca am lu tolloog ci mille parrain wala doo jàll lii ko di jëy yéen a kaay tëll dalal njiit réew mi Macky Sall nee na boobaak léegi mat na ñaari weer bam ñu waxee na premier ministre dina ko def ci bopp gouvernement bi boobaak léegi nag mboolem Sénégal yi toog di xaar de waaye nag France daal di xënde maanaam wax joojee amagul benn lu koy dëggal njiit réew ma Macky Sall fan la nekk ak premier ministre am ba yéen a bi mel na kuy tontu naan ma yow noppil rek maanaam ay bis bi nga xam ne moom la ñu nekk gay góomën a mi Macky Sall dina wàcc ci taabal ji tabb ab premier ministre yeesal gouvernement yéene kaay bi biral daan na nag am na ci ay ministre yu bëri yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu yeesalee gouvernement bi dinañ leen dàq de waaye nag njiit réew mi Macky Sall gis-gisam jéggi na loolee ndax am na ci ay ministre am yoo xam ne si doful sax ba leen di tëbal ndax élection législative yi mu ngi suñu kanam élection présidentielle yi tamit mu ngi suñu kanam est-ce que kon njiit réew mi Macky Sall politiquement rek dina dàq ñenn ci ay ministre am Seynabou Ndiaye Diakhaté moom mi nga xam ne moo nekk ca nag ci ay kàddoom diggante jigéenu Sénégal ak réewum Sénégal wax nañ li nga xam ne moo leen naqari fii ci biir réew mi wax na itam seeni ay bëgg-bëgg ñoom jigéen Seynabou Ndiaye Diakhaté njiital nag ma ngay sàkku ci gouvernement bu Sénégal ñu gën a taxawu jigéen ñi gën leen a jox gëdd ci ci réew mi loolu wareef la te warteef la jigéen ñi moom lu ñu leen ci gir rek doyul ndax kat ay jàmbaar dëgg lañ ku weddi laajal jigéen ñu leeral ya démb seen noos gam yëf moom lépp jàmm benn cat dong la am kay mooy taal 9 heures añu yàkku ko 18 heures càllalum la madame Badja ak maam Aram ñaari célibataire ak benn marié ñu séq ay añ 9h ba 18 lii moom bu dul woon mars bi da ngeen ñu wax ñu leer wala kon duutoo leen xëy si si kër gi lii kenn xamu ko ba